asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki M-Media Group Nourou Darayni ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonent boobu sallallahu alayhi wa di leen yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm di jëy ci néew boobu ak ziyaar bi suñu sëriñ ah, cheikh abdul ahad mbàkke ibnu cheikh balla ibnu cheikh mbay mbàkke ibnu coro mbàkke di ñaan yàlla dolli ko wér bu baax ak guddi gi fa nekk kàttan na xewal gu mu mën a àggale bi tam ci liggéey sëriñ tubaa te nu ànd ko moom jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa si war rek ci liggéey bu am solo bii di ci wane suñu mbégte ak suñu kontaante di ñaan yàlla it mu gën see jàppale bu baax a baax a baax ba mu àgg fu kaw suñ njort ci niñ ci bëgg a liggéeyal sëriñ bi daal ak ko bëgg rek yàlla nañ ci yàlla jàppale ban man koo defee nu kaw suñ njort ak ñu koy bëggee di ci ndokkeel ñëpp nag eh, boroom xam-xam ci biir di ñu dolli bu baax saa su ne ak it bokk yu baax yi nga xam ni dañu ñëw ak seen xel yu rafet ak di indi ay laaj yu am solo ci biir liggéey bi ak soxna yoo xam ne ñu ngi ci biir ñoom itam ñépp daal ñoo ngi ñaan yàlla nañu doon jàppale doon ñoo defal tawfiix bi jëy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nangu suñu liggéey suñu jëf yu baax te def ci ay rëcc rëcc mu jéggal ñu ko bi sayyidina bi jeexi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey xam naa dañuy jéem a tàbbiwaat ci liggéey bi rek su ko defee. xool li nga xam ne lii moom la fi yennati mbokk yi jot a rotal ci ay laaj ñu jéem xool rek luñ ci mën a nontu suñu këmtalay kattan ak liñ ci xam di ñaan yàlla jàppale ñu ci gënuñ cee defal tawfay bu baax a baax rek ba yépp kàddu yiñ fa rotal rek mu tombeek euh, ngërëmal sëñ bi di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey sunu laaj bi ñuy jëkki rek mu ngi jóge ci Serigne Bachirou Faye ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom dafay laaj lu jëm ci wàllu ak ndawal muy laaj maa xukkumu akli laxmi ma zabahal kitaabiyu dane li nga xam ne li ab jullit reyu ko maanaam ab nasaraanu ko rey wala ab yahud maanaam ñi nga xam ne ñi maanaam am lu ñuy tiire lay wax daal jënd yàpp woow nga xam ne moom lañuy ñuy rey ñoom euh, muy laaj lan moo ci àtte ba waaw loolu lañ ko ci wax dañ ko naan euh, jaizun wa xalaalun maanaam dañ ne ki nga xam ne kii kitaab bii la maanaam am na téere maanaam lamu ren di ab jullit mën na koo lekk ndax euh, aay bee ñu doon wax fee mooy loolu yàlla du wax naan ñamu ñi nga xam ne ñi am nañu ay téere dagan na leen yéen jullit yi bu fekkee ne lu dagan ci yéen la ngeen doon ko lekk waaye yéen itam seenu ñam dagan na ci ñoom kon foofu dañ fi mën a daal di jàpp ñoom lu ñu rend rek maanaam dagan na bu dee kitaab yi la euh, ndax it euh, bi yàlla lim yi nga xam ne yi moom la araamal ci ñun ci wàllu lekk itam ci wàllu ndawal googu itam maanaam limaale ca loo xam ne lii ñooñu kenn ci ñoom da ko caa ren muy ñooñu am téere kon dañuy wax ne fa kullu ma unhira damu wa zikra smullahi alayhi fa kuluhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane lépp loo xam ne dañ ko rendee maanaam bàyyi del jamu tuuru maanaam lay génn noonu ñu bañ koo taatan di ko def nen waaye tam biñ koy rey ñu tudd ca yàlla nee na loola mën ngeen koo lekk tey dañ ne al aslu fi zabaihi al xellu dafay am sax ñoo xam ne dañ doon jur gi nga xam ne gi dagan na ngir ñu lekk ko ñun maanaam buñ ko reyee rek maanaam day daal buñ ko rendee cere dëgg day nekk loo xam ne lii lu dagan la su ko defee ni ko laaj yi nga xam ne ñooñu nga xam ne ay kitaab yi lañu di jaay ak ndawal yow mii dem di jënd xam naa bu dee ndawal bu ñu rey di jaay la yow doo mën a xam fa ñu koy liggéeye ndax doo ndax dinañ ca sàmmanteeg nii jullit ñi reyee noonu lañ ko rey wala déet waaye ala kulli xaal jéem ñëw nga fekk bu doon ndawal goo xam ne gi daal yow sa diine mayen na la ne la yow lii mën nga koo lekk donte ci nasaraan bi moo ko yor wala euh, yahud bii kon da koy dugal foofu rek ndax nag ab julli sax foofu ne jéem day jaay ak ndawal mën naa doon koo xam ne kii maanaam du sàmmonteeg na nga xam ne lii moom la ñu war a rendee ndaxte euh, seytaane sax day nax nit léeg-léeg ba am na ñoo xam ne ñi gis nga dañ naa ay judit lañu waaye foog ne dañuy fekk loo xam ne lu lu médd la bu nekkee médd mu bees ñu daal di koy jël defar ko dem di ko jaay am na ñoo xam ne ñii seen ak ñeme yàlla ak ñeme bàkkaar àgg na ci ay mbaam suuf yi nga xam ne sax xam naa ci kanam doon na ko laaj mbaam suuf yi sax dañ ko rey di ko lekk te loolu maanaam ab jullit waru koo lekk kon yow miy jënd ndawal dem ci nit ki mu di ko jaay daal boo ko laajee mu ne la lii aw nag la wala bëy la wala mu xar la maanaam mu tombeek jur bi nga xam ne gi moom sunu diine may nañu daal ñu lekk ko mu doon lu ñu ren bi eh, ne nañu maanaam dagan na bu dee ci ñooñu la kon daal la ca gën a am solo daal mooy jéem moom yow mënoo caa am ak leer ndax mënoo fekkee fañ ko liggéeyee nga fexe yow li ngay jënd rek maanaam mu doon loo xam ne lii lu dagan la ndax ñooñu moom ahlu kitaab yooyu ñuy wax bu ñuy rend itam dañoo bëggan bu ñuy rend ñu tudd ca turu yàlla rendee ko it ni nga xam ne bii moom la jullit war a rendee kon daal ñoom daal ne nañ bu ñu rendee mën nañoo lekk seen loolu ñu xam ne moom la ñu rendi ndax boo ko dugalee ca lee ma jëkk na wax ne muy seenu ñam dagan na ci nun kon maanaam li ñu rend itam day day dugg foofu ci biir kon xam naa ñu jàppe ko noonu lu mën a nekk la muy laajaat itam euh, comme xeeti jur gi nga xam ne gi moom may nañ ñu ñu lekk ko moom leer na waaye day laajal yeneen xeeti jur yi ndax am na ci yeneen yoo xam ne yii may nañu jurit mu lekk ko wala yi ci des yëpp dañoo araam ci ñoom waaw eh, yi ñu nu limal nii yëpp rek yemut ci ne maanaam xayawaan yi eh, yooyu rek lañ war a lekk waaye xam nga bàyyi may dafa am yu mag ak yu ndaw su ko defee yu mag yi mu la limal muy nag ak xar ak bëy ak gileem yooyu mu dee ci wàllu googu la moom day dagan ci jullit bi mu lekk ko muy lu siiw loo xam ne lii lu ñu xam la waaye itam fas yi nga xam ne ni moom la ñu takk ay sareet ak di ko liggéey tamit maanaam euh, yeneen boroom xam-xam yépp dëppoon nañ ci ne maanaam aw fas maanaam mën nañ koo lekk te it euh, loolu la yonente bi sallallahu alayhi wax na ne li wax mu ne laxmul xayli mu baaxul fi xawli jumhuri ahlil ilmi boroom xam-xam yi yëngu ci fiqh dinu jàngal fiqh dinu jàngal lislaam maanaam bi ca bind ne nañu maanaam yàpp fas maanaam dagan na ab jullit lekk ko day ne loolu moom lu wér a wér la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne usina fii luhumil xayli saxaaba yi mas nañu am digalal maanaam rey aw fas lekk ko ndaxte ab xaddisa ngi boo xam ne bii soxna si moo ko wax mooy xaalat asma u bintu abi bikirin annahum naxaru farasan ala ahdi rasuli sallallahu alayhi wa sallam fil madinati wa akaluha asma bint abi bakar dañuy nettali ne ñoom de mas nañoo locc locc mooy comme noonu ñu rey giléem maanaam nga xam ne giléem moom du su ko rendi dañ koy locc ne ne mas nañoo def noonu aw fas ci jamono yonent bi te bu ñu nekkee ca madina lekk fas woowee ci teewaay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon aw fas daal maanaam ne nañu moom itam bokk ci yi nga xam ne yi mënees na ko lekk ba mu des nag ñi nga xam ne ñi dañ yëngu ci ngiram imam malik ñooñu moom maanaam ñoom daganaluñu daganaluñu ko te it la ñu tegtaloo mooy aay bi di wax ne wal xayla wal biraala wal xamira li tarkabuha wa zinatan ji aay bi wax ne ne bi mu lim xeel yi nu yàlla defal mu limaale ca ne da xaaj ji mooy ne lii de aw fas ak berkelle ak ak mbaam daal maanaam dañ leen ko bindal ngir ngeen di leen war di leen liggéey di leen jëfandikoo ak di leen def ab taar maanaam su ngeen ci bëggee wut loo xam ne lii lu rafet lay doon ci yéen daal di yem foofu kon maanaam ñoom waa Maliki yi foofu lañ sukkandiku ne daal aw fas moom mën nañ koo bañ a lekk. li ci toppaat muy laaj comme mbaam yi nuy jëfandikoo ci biir kër yi. muy mbaam sëf yi lañ ko mën a tuddee yooyu muy laaj ndax dagan na bi di ko wala di déedéet yooyu moom dañ ne xaramati sunnatu akala laxmil ximaar al ahli li annahu najis maanaam waa sunna ne ne ne nañu sunna ci boppam dafa araamal lekk yàpp mbaam sëf yi nga xam ne ñoo ne ci biir kër yi ndaxte ne ne mbaam yooyu maanaam dafa am sobe dañu am sobe loolu tax na ne mbaam yi ñu jëfandikoo di ko takkar yooyu daal ak di ko liggéey moom mayuñu ab jullit di ko lekk loolu sunna da ko tere yeneen laaj ji toppit mi ngi jóge ci sëriñ Papa Mor Niang ñoo ngi koy siyaar moom tam bu baax a baax sëriñ Papa Mor Niang sama rakk sama doom yi ñoo ci genn wet gi waa ju baax nag ndeysaan ku bëgg lu baax wax dëgg yàlla di ca doxit di ca yëngutu wax dëgg noo bokk doon benn yàlla boole ñu boolab dëkk ñu bokk ab dëkk waaye tamit ku baax la wax dëgg yàlla ku bëgg lu baax ci wàllu liggéeyal islam bi wax dëgg yàlla lépp lu ñu yëngatu ci dëkk bi rek ci loo xam ne lii lu baax la wax dëgg yàlla moom kenn mënu ko ca kenn jiitu ko ca kenn ëpp ko ca eh, yéene itam ndax dina ca def kenn talaayal kàttanam lu mu ca mën a wax ci lu baax rek ci soññe itam dina ca soññe kon Pam Mor ñoo ngi lay ziar bu baax a baax dina toog rek ñaan yàlla daal. yal na yàlla dolli xewal bu baax a baax a baax ba ku mu doon ci ñun rek maanaam ni nga bëgg a liggéeyal sëriñ bi daal yàlla may la xewal ak nga man ko naa liggéeyee Pape Mor dafay laaj ne waa moom dafa gis ne euh, day laaj ndax jàkka su amul ab soroor euh, des na ca mën a julli jumaa ya wala mu ne muy laaj xukkumu sawmaati fil masjidi awaajibun am sunnatun am mustahab moom dane day laaj ndax waaw ab sooroor ci jàkka maanaam da caa war nga xam ne mënu caa ñàkk wala da caa nekk sunna wala dañ ko caa sopp wala daal maanaam mën na caa ñàkk waaw foofu ko ci tontu mooy jàkka sooroon nekku ca lu ca war nekku ca sunna waaye mën nañ ne kon luñ sopp la loo xam ne li dañ ko caa sos ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu nekk madina lépp maanaam mësuta julli ci jàkka joo xam ne ji dafa am ay sooroor kon ay jamonoom jàkka daawul am sooroor te daanañ julli ajjuma ci jàkka ya kon eh, ab sooroor daal ci jàkka maanaam bu ca amee baax na maanaam lu ñu sosal borom xam-xam yi rafetlu ko ndax dinañ ci wax ay tegtal yoo xam ni moo tax ñoom ñu sos ko di ko def waaye ñàkk caa nekkit maanaam jàkka ju amut ab sooroor terewut maanaam des na te mën a julli ak ajjuma ndaxte eh, sallallahu alayhi wa sallam jamono yi mu nekkee ma Madina maanaam mësta julli ci jàkka joo xam ne ji dafa am ab sooroor dégg nga kon eh, bu ko defee ne nga ne na xad zahaba bal xad zahaba ila mashruati binaiha kathirun min ahlil ilmi maanaam ne ne boroom xam-xam yi daal ñoo xalaat xam ne euh, comme ku mel ni Bilaal maanaam jamono yonente bi nekk foofu Madina Bilaal moom lañ daan nodduloo te Bilaal da daan xool béréb boo xam ne bi bu yëkkatiku la maanaam mu dem yéeg ca kaw ngir bu dee noddu maanaam kàddoom ngi gën a mën a yëkkatiku gën a mën a sori ñu gis na nag jëm moom da daan bàyyi jàkka ji nii seet béréb bu langa moom boo xam ne bi dafa yëkkatiku ca kaw Euh, mu di see yéeg di noddu ngir euh, kàddoom goo gën a sori kon mën nañoo def ay sooroor ci jàkka yi ku ko man su ko defee ca jamono yi nga xam ne ay haut amut dañuy yéeg ca kaw sooroor ba maanaam di noddu ngir boo nee ca kaw maanaam foofu la kàddu gi gën a sore kon ab sooroor daal maanaam bu nekkul ci jàkka itam euh, charte ya nga xam ne yi moom lañu wax ne bu amee mënees naa julli juma ca jàkka ja soo amee rek maanaam jàkka mu mën a doon bu amee ay soroor ak bu amul ay soroor ñoo ca yem ndaxte ay soroor bokkut ci sart yi nga xam ne dañ ne maanaam moo war a tax ñu e, julli ci e, julli juma ci jàkka bi ci desit mu ne dafa gis ay borom xam-xam yoo xam ne yii e, dañuy takk ñaari jaaro waaw borom xam-xam boo xam ne bii de day takk ñaari jaaro moom dafa topp bakkanam rek ak bëgg-bëggam waaye maanaam waaye toppul sunna si kon ndax sallallahu alayhi wa sallam moom li mu maye mooy li sunna may laay wax mooy euh, benn jaaro la may góor mu takk ko ci xaalis waaye bu dee or sax moom dañ ko ko tere maanaam mayuñu ko ca dara waaye bu dem xaalis itam benn euh, jaaro dong lañ ko ca may su ko defee euh, koo xam ne kii dafa takk ñaari jaaro moo xam boroomam xam-xam la wala doon boroomam xam-xam naa lu mu tànnal boppam la mu neex ko mu di ko def maanaam mu dindi sunna teg ko fee di doxe ba kana waaye loolu moom na sant ko kenn sunna daal euh, benn jaaro la may góor bu takk ko te nu doonoon ab xaalis su ko defee euh, loolu itam mooy li nga xam ne li moom la nu sunna jàngal beneen laajam bi ci topp mooy ne daal moom bam doonee ko ne ba léegi day dégg ñu naan ku mu doon ci nun mbindeef moom danu maanaam nit ku mu mën a doon am na garab goo xam ne bii da caa am aw xob su xobam woowee maanaam su demee ba war a faatu xobam woowee mooy wadd ci suuf eh, bu ko defee mooy teg na ne kii moom dafa war a faatu loolu mu ne waaw loolu de lu am la faqad zakarahu baadu ahli tafri tafsir fi xawlihi taala wa ma tasxutu min warxatin illaa yaalamuha dafa am ay bi wax ci eh, ay wàllu xob yooyu nga xam ne ñi nag maanaam dañuy tafsir alxuraan dañ ne ay bi yàlla ne wa ma tasxutu min waraxatin amul benn xob buy wadde ca garab googee illaa yaalamuha lu dul yàlla xam na ko xam na boroom ne nañ maanaam mooy am na garab goo xam ne bii Euh, yàlla da ko bind xob ya tolloog nit doomu aadama yi maanaam ni nit ñi war a toll nga xam ne ku ne am na ci aw xob euh, su nit ki waree faatu xob woowee daal di wadd mooy loolu yi tamit wax dëgg yàlla am nañ ci ay tegtal yu wér ca yoo xam ne noo ngi ko gis ci mbindam mbindam xaadimu rasul ci téeréem bii nga xam ne bi moo tudd silkul jawahiri fii axbaari saraire dafa wax ne téere boobu sëriñ bi da cay bind wax ne euh, ruya an allaha taala xalaqa shajaratan taxta al arshi alayha awraaxun bi adadil xalaaiq ne ne sëriñ Tuubaa bind nañ ca arash garab goo xam ne gii xob ya ca nekk dafa tolloog limab mbindeef nga xam ne yi ñoom la yàlla bind fa isantaha ajalul abdi wa baqi minhu arbauna yowman saqatat waraqatuhu fi xijri awra ila ne ne nit ki su demee ba ab digam jeex maanaam mu war a faatu euh, fekk léegi dese na lu mat ñeent fukki fan ne ne moom aw xawam day da ca garab googee daal di dem ca béréb ba nga xam ne bi fa fa lañ koy tegal Azraïl mi nga xam ne ni maanaam mooy jël róoyi nit ñi foofee lañ ko koy dugal moom Azraïl su ko defee Azraïl ne ne fa yuuxin bi zalika anna allaha taala amano bi nga xam di bi saahibiha su ko defee il su ñëwee foofu su fekkee xob woowu day daal di xam ne yàlla da ko ne euh, boroom xob bii daal léegi na dem jël ak ruuxam ne na loolu itam wa baadu yusammunahum mayitan fi samaa yi dégg nga ne ne bu boobaa nag waa asamaan ñoom dañ ko daal di tàggee daal di jàpp ne euh, nit moom faatu na kon loolu lu sax la lu am na ngir lii sëriñ bi bind ci loolu moom dañ koy mën a jàpp mu doon lu wér a wér kon garab googu daal su nit ki ak dundam desee ñeen fukki fan xob woowu dana ca de dem foofu nga xam ne fii fi lañ koy tegal asra yi muy jël ruux yi bu ko defee asra il xam ne kii kan moom borom xob yi moom euh, boo amaatee ñeent fukki fan rek day faatu bu ko defee su amee ñeen fukki fan mu daal di ñëw jël ruux ak jëmm jooju waaw kon xam naa moom itam defe naa loolu mooy bi mujjoon a laaj kon yal na yàlla defal tawfeex bu baax a baax ak dégg topp bi jaay si nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen laaj yi ci topp wala yeneen laaj yi ci topp sëriñ Ndiir Touba Mbusa Ndiir moo koy laaj moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam di ko jaajëfal di ko sant bu baax a baax a baax ñu ngi gën a dalal suñu xel saa su nekk wax dëgg yàlla duñu ñu gën a soññ itam ndax euh, fi mu toll ci at ak fi mu toll wax dëgg yàlla mu nekk sunu kilifa ci wet yépp te ànd ak ñun ci liggéey bi dañu ci soññ saa su wax dëgg yàlla dinu ci dimbali itam dinu ci xamal luñ ci xamutan loolu itam na nga ko koy sante bu baax a baax dañaan yàlla gën koo dëgëral bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay laaj ne ki nga xam ne kii da doon julli julli ñeenti rakkaa bi mu jullee ñaari rakka ñaareelu rakka ba fekk bàyyi na ca benn ponk mu daal di toog taaye waaye bi mu taaye ba jóg nag ba julli rakka ah, bi ci topp ba rukkoo léegi dafay doog a farleku ne eh, moom kat ñaareelu rakkaam bi bàyyi na ca ponk léegi kon ñetteelu rakka moom mooy doon ñaareel ba fekk taayen na ba jóg nag muy laaj na moom waaw léegi boobu raka léegi day dañ ñetteel bi mooy ñëw nekk ñaareel bi waaye tam dafa demaat ci biir julli gi ci biir rakka boobu itamit boobu ñetteel boobu nga xam ne mooy doon ñaareel ba léegi mu fàtte ca jàng aw saar kon gis nga ci bii mooy remplacer ñaareel ba te fàtte na caa euh, jàng aw saar tey it nga xam ne bii dañ koy bàyyi mu jàll ndax doxatul maanaam mënatul a jàll euh, mu doon ko remplacer ak bii booba taayawan na ci ndax day taayawaat lay wax ak bu jullee ba julli nga ba sotti euh, nan lay def waaw dañ ne foofu yooyu du tashahuda wa yasjudu xabla salaam ne leen loolu kum dal ci julli maanaam taay boobu danga nga koy taayawaat jéem rakkaam ñaareel bala te rakkaam ñaareel ba doxatut dematul maanaam dañ na comme noonu mu dañu noonu la taay bi ànd ak moom dem kon fi nga jëlee sa ñetteelu raka boobu daal di ko koy remplacer da ngay toog daal di taaye jógaat daal di àggale sa julli te sorale na léegi yow kon euh, yokk nga wàññi nga ndax euh, toogal nga foo xam ne fi da nga fa doon taaye te julli nga foofa dafa am jafe-jafe nga jóg bi ngay julliwaat ràkka boobu nga doon julli nga fàtte ca jàng aw saar kon maanaam dafa wàññi yokk ngir toogaay ya doon am foofu ci diggante bi su ko defee dañ ne maanaam ku yokk ci julli wàññi luy waral bu anaam ak sujjóot maanaam bala nga seen mën nga koy sujjóot kooku maanaam su jullee bu julli ga ba àgg ba mu taay ba taay ba àgg day sujjóot ñaari sujjóot daal Eh, taayawaat daal di doog sëlmal ndaxte dañ ne al fuqaha u xaalu man naqasa wa zaada sajada xabla salaam koo xam ne kii danga yokk ci julli ba ci yàgg si nga wàññiwaat ñaar yooyu buñ dajee maanaam sujjóotab eh, ginnaaw bu julli nga matee lañ koy sujjóotal beneen laaj bi mi ngi laaj ne nga xam naa laaj bi nag mel na ni dafa xaw mun xawuta tàqalikoo lool lool ndax dafa wax jëkk a wax ne euh, alfarq bayna arkaani salaatil bi wa salaati nafli maanaam day laaj ndax jullik farata ak jullik naafila maanaam seen ponk yi am na tàqalikoo walla déet su boo fekkee ni noonu la ci jubli ci laaj bi muy ponk yi nga xam ne ni moom lañuy ñuy jullee julli farata ak ponk yi nga xam ni moom la ñuy julli julli naafila day amul benn wuute ndax euh, li ngay def ci julli farata muy ponk ya bu dee naafila itam moom ngay def lu dut ni nag euh, bu dee naafila la xañ na mën na am ponk yi cay wàññi yoo xam ne dañ koy may nit ki ndax yoon bi sallallahu alayhi da daa eh, ne na eh, kuy julli julli la bu dee guddi la sa bu la neexee mën ngaa toog di ko julli kon bu dee naafila la kon ñu may la nag nga toog mën a julli eh, kon day am ponk yoo xam ni kon dina wàññeeku ca naafila gooyu ndax bi ngay taxaw di wax allahu akbar taxawaay boobu faratalaan te kon boo dee toog di julli julli naafila ga kon booy wax allahu akbar doo taxaw booy jàng fatiha itam dañ leen a taxawaay ba nga taxaw ci jamono ji nga jàng fatiha loolu ponk la ca te boo toogee kon taxawaay boobu itam day jàll kon day bu dee ci ponk yi lay laaj bu dee ni dara lañ am nañu taqali ko daal ci foofu lañuy ñuy amee lu ñuy xàjjali ko waaye ci des yépp ñoo ko bokk waaye tamit bu fekkee ni eh, day laaj jullik farata ak jullik la lan moo leen tàqale mooy euh, jullik farata dañu ne koo xam ne kii bàyyi nga ko da ngay def bàkkaar boo xam ne bii dañ la koy topp euh, di la ca teg ay daan waaye jullik naafila moom sunna la soo xam ne si maanaam nit ki da koy def ngir yokke ko tuyaabam waaye ku ko bàyyi itam maanaam doo ca am benn bakkaar xam naa kon bu fekkee ni boobu la it noonu la bu dee ni day laaj ñaari julli yi muy farataak naafila moom lu ñu wute moom moom bokkuñu waaw bokkuñu beneen laajam bi ci topp mu ne day laaj nit koo xam ne kii dafa bokk ci miraas war na donn lan moo ko mën a gàllankoor ba bokk ca miraas ma maanaam du donn waaw foofu it liñ ko fi wax mooy bu fekkee ni koo xam ne kii am na gàllankoor yoo xam ne bu doonte moom maanaam dina bokk ci miraas mi nga xam ne moom gàllankoor yi ko dal moom day tax moom bokkatut ci miraas mi ne moom loolu lañu wax mawaaniul irsi li mën nañ ko ci ab fatwa fële muy nit ki bu fekkee ne dafa rey ki mu war a kooku moom dootu ko donn ngir rey mu ko rey te rewut kon bokk na ci ñi nga xam ne ñi war nañu koo donn waaye rey gaa ko ci génne moo ko gàllankoor kon bokk na itam zina muy njaaloo ba doom ba doom am ca bu njaaloo am ba doom am ca doom jooju ne nañ du doon nante ak baayam kon gis nga kon foofu tamit bu dee ci wàll googu na eh, doom ji bu doon ten loolu day donn baayam waaye kon am na gàllankoor ak eh, léegi moom mënatu la bokk ci miiraas mi kon loolu itam lenn la ci loo xam ne li dina gàllankoor nit ci miiraas ba mu war a doon du donn la ca tege it mooy nit ki dina dugg ci biir miraas maanaam ñaari gàllankoor man ko ca am ca maanaam ña bokk miraas ma nam fay demee maanaam ñaari gàllankoor yooyu bi ci jëkk loolu lañu wax maanaam bu wala boog ñu ne ñaari mooy bu jëkk mooy xaj bu naqasin lañ koy tudde ci miraas mooy nit ki dinañ ko gàllankoor ci miraas ngir maanaam lam waran a am léegi day wàññeeku ngir kii mu bokkal miiras mee tax beneen bi ñu wax ko ñu koy tuddee xaj bu isqaatin beneen bi nit ki mën nañ koo gàllankoor maanaam mu nekk ci biir miiras mi waran cee bokk waaye day dem ba maanaam léegi dootul donn ndax maanaam am na ku ko gàllankoor koo xam ne kii bu fa néew moom day donn waaye su duggee rek moom naanaam dootul bokk ca miiras ma su ko defee ci misaal maanaam ci bi ma la jëkk a wax muy nit ki dina gàllankoor ba cër bi mu wara na am maanaam day wàññeeku mi ngi nii moom la ñuy wax nii ne ne al ibnu yaxjubu zawja min an fi ila ruba soxna si nga xam ne si dafa faatu maanaam te amul doom bu ko bu ñu koy miiraas jëkkëram ab xaaj la war a am alal yi soxna sa maanaam dañuy xaaj eh, alali soxna sa jox jëkkër ji xaaj ba la ca des ñu doog a xool ña ca des ñan ñoo ko moom ñu séddale leen ku ne jox sa waaye bu bu soxna si bàyyee doom maanaam xaaj boobu ñu waroon a jox jëkkër ji maanaam léegi dootu ko am waaye dañuy séddale dañuy séddale alal ji ñeenti xaaj jël benn ba jox ko jëkkëram jooju kon foofu da ngay daal di gis ne kii kat gàllankoor nañ ko ci maanaam wàññi ab cëram ci wet mooy bu fi doom ji nekkutan genn wàll nga lay am waaye jéem doom jaa ngi fi léegi dañu xaaj alal ji ñeenti xaaj eh, jox ko ca benn kon xam nga ne gis nga ne kon ab cëram wàññeeku na wa zawjatu min ar la ila thumun ne ne nit ki itam bu faatoo nit ku góor bàyyi fi soxna te amul doom maanaam alali waa ji dañ koy xaaj ñeenti xaaj jox soxna sa wala ay soxnaam euh, genn wàll ga muy ñeenti cër lañ koy def benn bi ñu boole ko bu dee kenn la bu seen soxna la moo koy moom bu dee lu ëpp seen soxna yi rek ñoo koy bokk waaye gis nga waa ji su fi bàyyee doom maanaam su amee doom léegi soxna sa wala soxna ya sumul dañu yem sumul mooy léegi dañu xaaj alal ji juróom xaaj jox leen benn ba ñu bokk tey li ñu xaaj ñeent boo ci amee cër mooy ëpp lu ñu xaaj juróom-ñetti xaaj kon kooku it gis nga ne gàllankoor nañ ko ci maanaam wàññi ab cëram wal abba wal jadda min a taasir ila sulus bil fardi ne itam bu fi nit ki jógee ku góor gi euh, bàyyi fi waajuramu góor ak euh, maamam ju góor ne taasib maanaam ñoom ñoo doon war a moom alal ji bu dee ne ñoom doo nga fa nekk waaye su ñu fa nekkee ak doom nag léegi ñoom sudus la ñuy am boo ko defee kon gis nga ñoom itam gàllankoor nañ leen ci wàññi seeni cër kon bu dee ci wàllu googu daal moom mm, am na xeet yooyu daal mooy li nga xam ne lii maanaam dana tax nit ki gàllankooru ba la nga xam ne lii moom la war a na am ca miraas ma maanaam day wàññe ko du ca jóge nag du ca du ca ñàkk bokk nag waaye day wàññiku daal maanaam ab cëram mooy wàññeeku beneen gàllankoor bi mën a dit nit dal nit ci miiraas ba tax du mi moom du ca bokk maanaam du ca am dara mooy loolu lay wax xajbul isqaat xajbul isqaat mooy huwa manul waaris kulli ma kaana yarisu li wujudi shaxsin aaxara yaxjubuhu ne day am ñoo xam na ñi bu ñu dajee ca miiraas ma ñooy yiir ña ca des ba ñoom dootuñu mën a bokk ca miraas mi nga xam ne bu fa ñeeneewutan ñoom ñii dañu doon waaye ñii fi nekk a tax moo moom ñoom dootuñu am ab cër ca miraas ma nee na loolu nag kal jaddi na lu mel ni maam ji góor fa innahu laa miraasa lahu maal abdi dégg nga ne ne bu fekkee ni maam ji góor dafay nekk bàyyi na fi maanaam maam ja du donn ndax bàyyi mooy daal di daal di taxaw palaasam su ko defee ñu ne ñi nga xam ne ñi maanaam suñu ku ci bokk ci miraas rek dina am ñoo ca génn ñoo xam ne ñu war nañ caa bokk ñoo ne ñooñu ñaar fukk lañu ak benn gis nga ne ne bokk na ca doog ju góor ak ju jigéen maanaam mën lañ ko wax ñoom bu ñu fa nekkee ab sët dootul bokk ca miraas ma dégg nga sët bu góor wala bu jigéen kenn dootul mën a bokk ca miraas ma eh, kii itam ibnul ibni falaa yarismaahu man taxtahu min ibni min ibni ibni maanaam sët bu góor bu fekkee moom doo nga fa ne maanaam doom néew fa ci ki faatu eh, ab sëtaat lañuy wax ab sëtaat du mën a donn waaye tamit Euh, bu dee ni jigéen bu euh, set bu jigéen bu góor jur itam euh, ne nañ dañuy yiir képp koo xam ne kii doom jooju da koy yiir kon gis nga ñoom itam bu ñu fa nekkee bu fa imnu li imnu nekkee dafay taxaw taxawaayam doom ju góor kon moom itam day gàllankoor deuxième sët ci niñ ko mën a waxe euh, bekku na ci tam bu fa doom ju jigéen nekkee euh, doom ju jigéen bu nekkee ci miiras euh, ña nga xam na ni dañoo bokk moom ndey rek bokk moom ndey rek moo xam ay góor lañu walla ay jigéen lañu duñu mën a bokk maanaam soxna ak jigéen gi mooy jël miiras ma maanaam dafa nekk bunt bu yaatu boo xam ne bii daal euh, dafa gudd ndax dañoo mat ñaar fukk ak benn ñoo xam ne ñii ñoom itam buñ nekkee ci biir miraas dina ci am ñoo xam ne ñii ñoom ñi buñ fi nekkutoon maanaam bi dañu am cër waaye ñi fi nekk ñoo tax maanaam dootuñu mën a am benn cër ca miraas ma kon euh, ñetti gàllankoor yi daal moom la seetlu ci li mën a gàllankoor nit ci miraas ba dootu ca mën a bokk bu jëkk bi mooy yaa nga xam ne moom dañ doon moom tey tere nit ki dond yoo xam ne moom dadu bokk ci miraas mi moom li mën nañ ko ca fatwa bale mooy nga xam ne ki rey nit ki mu war a dollanteel wala doomi njaaloo jooju wala ñaar ñi ki nga xam ne kii dafa soxnaam mu ëmb mu ne ko doom ji euh, du sama doom yu mel noonu ñu doon wax ñooñu moom dañ dut bokk waaye am na ñoo xam ne mën nañu dugg ci biir miraas bi bokk ci waaye la leen di gàllankoor mooy seen ab cër day wàññeeku ndax euh, ñañ ko séqal ca biir ñooy wàññi seen cër booba waaye dafa am ñoo xam ne ni dañu gàllankoor ba maanaam euh, miraas maanaam maanaam dootu ci am ab cër muy laajaatit euh, laaja mu mujj ci foofu mooy day wax naan day dégg ñu naan njaayam miraas muy laaj nag ndax miraas da am njaay spécial wala déet déedéet jaay moom jaay la rek xaj na nag léeg-léeg ñu koy dégg ci miraas ñu naan nag na ngeen xam ne njaayam miraas la rek defe naa loola lañ ci jublu xam naa bëgg ne nañu oyofal njaay maag yooyu ngir ñi ko seq ñoom ñoo ko moom rek te dañ koy lijjantiwaat seen biir yaakaar naa loolu lañ ciy jublu waaye miraas moom newut amul na dañ la naan ñi ngi ko koy jaay déedéet xanaa kay kii miraas nag maanaam am na tëralin wu muy tëral woo xam ne maanaam da cay bëgg a am wasat maanaam da cay bëgg am lu diggu doomu moo tax ñenn ñiy miraas am na ñoo xam ne ñi bu ñuy miraas ñu wut ñetti kuréel ñoo xam ne ñi kuréel bu ci nekk day mat ñetti nit su ko defee ñetti nit ñooñu bu ñu àndee xool ne nangam jaral na leen ko ci kuréel boobu ñeneen ñi ñëw ne nangam jaral na leen ko ñeneen ñëw ba muy ñett bu ko defee ñetti njëg yooyu da ciy xool bi ci digg doomu bu boobaa loolu maanaam la ca digg doomu la cay soxla sax nag moo tax mu di ko def ñetti xaaj waaye nag doonul sax ne maanaam noonu lañ ko war a jaayee kon da koy bëgg a gën a liggéey ba rek ak gën koo teg ci maandu waaye nag du ca sart daal nekk du ca war kon daal loolu mooy lenn ci li nga xam ne lii lu aju ci miraas la dañ koo tënk lool nag ndax miraas moom bunt boo ci dugg rek day yaatu lool lool lool lool waaw kon yal na yàlla doolu lay defal tawfeex jeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi kon loolu mooy li nga xam li moo fi jot na rot ci ay laaj kon yal na ñu yàlla defal tawfiix di jeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasalaamu aleykum wa